waaw waaw waaw waaw waaw ñàkk jëriñu ngay noonu dofu mag bi le fou de Thiaroye Thiaroye Molo le leader de Thiaroye Molo moom ngay am noonu ci tous bi la peste de Jackson Thiaroye Géej Thiaroye Molo Thiaroye Gare seen a ngi noonu ñàkk jëriñu jël ko waaw mi ngi noonu noonu ci tous bi Lac de Jackson comme ni ma leen ko waxee sama gars yi tey la dimanche 25 décembre 2022 ñu ngi à l'arène nationale le promoteur Baba Diaw à la tête de la structure Jam Production moo organisé ñàkk jariñu dof bu mag bi moom ngay am noonu. waaw waaw ñàkk jariñu ngay am noonu from Thiaroye Mbolo jëlal giri ci wet gi. Yakham Baol mi dua ci ginnaaw Doua mi ngi ci ginnaaw Ma Alpha Boy Ambulant mi ngi ci rang yi waaw waaw référence aussi mi ngi ci rang yi léegi di caaroy mbooloo ñoom ngay am loolu ñàkk jariñu dox bu mag bi ngay am loolu jël ko l'adversaire de Jackson c'est l'un des meilleurs de sa génération C'est l'un des meilleurs de sa génération, Nyaki Djarignou. From Tcharoy Molo, le leader de l'équipe de Tcharoy Molo, l'adversaire de Jackson Nyaki Djarignou. Aujourd'hui, dimanche, 25 décembre 2022, mesdames et messieurs, on est à l'arène nationale. Le promoteur Babachon, à la tête de la structure de Production est passé par là. waaw waaw sama gars dokku mag bi moom di am noonu kookoy ñàkk jëriñu le leader de l'écurie Thiaroye Mbolo leader de l'écurie Thiaroye Mbolo l'adversaire de Jackson moom am noonu kookoy dokku mag bi nee na day daan rek nee na day daan rek waaw waaw ñàkk jariñu waaw waaw sama gaay ñàkk jariñu tut ci tuus bi chorégraphie chorégraphie chorégraphie ñàkk jariñu mbooloo ci rang yi Yakham Bawol aussi mi ngi ci maa ngi seen duwaa duwaa mag la ci ñàkk moo moo teel bopp bi moo maa ngi seen référence moo nekk ci maa fa booy ambila aussi mi ngi Aujourd'hui, dimanche 25 décembre 2022, le galère national, le promoteur, Baba la c'est de la structure, Jam Production m'a organisé. Nous Jackson, dégg zone le leader de l'écurie Roy mesdames et messieurs c'est l'un des meilleurs nation, ñàkk a adversaire de Jackson aujourd'hui dimanche 25 décembre 2021 on est à l'arrêt nationale le promoteur Baba à la tête de la du est passé par waaw waaw looloo leer ñàkk jëriñu ngay am loolu dox bu mag bi ngay am loolu from caaray booloo ñàkk jëriñu am loolu